mais loolu combat boobu taxaw ñu dawal promo bi dawalagul sax ñu dégg ki nga xamante ni mooy Boy Niang ak Balla Gaye naka nga gisee loolu mbër jël ñaari avance. waaw mais mbër pourquoi mbër war a mbër war a jël dix avance signé ko kon signé ko ak promoteur ne ne ñaan wër rek tey bëre sport la. pour Ligue liggéey champions ngay signé ak trente match di ko football boo footballee bii football fii bi football bi mais sëñ bi nag nit day évoluer lamb ji xaalis moo koy def lii day wane ne lamb ji instant yii nii kenn dootul toog naan combat bi combat bi bo Balla Gaye da leer na bu jugee fii mu ngi fële Ligue des champions ay milliards la ñuy fay jour bu nekk li ñu koy fay mën na jënd promoteur yeeg mbëri waaye dañuy fubal maxi bi fubal maxi bi fubal maxi bi noonu la mën a deme Balla Gaye Boy Niang noo ko gisee. lamb ji doy waar la man damay conseil Boy Niang dama koy xamal ne ko lamb ji moo si ëpp sens. moom Boy Niang. waaw xamal tey booy Niang bu bëreeg Tapha Tine même bu ko Tapha Tine daanee am na beneen combat bu boo xam ne nii ki muy bëreel moo xaw a ëpp niveau Tapha Tine du ci perte. wala xamoo li ma la wax. ngay dégg bu ko daanee mënut a jot Balla Gaye moom day daa mën moom bu ko yàlla mayee defee tamit day jot Balla Gaye ndax jël na avance ba pare. kon kan moo ci am bénéfice. Boy Niang Balla Gaye bu daanee bombardier tamit mënatul a bom Balla Gaye bu daanee bombardier Boy Niang sax bu amee défaite Balla Gaye mënut a jël ku ko ku ko ku ko ndax xas na ko ba signé. Balla Gaye même bu amoon defet boo ñaa am defet sax Balla Gaye moo ëpp def moo ëpp niveau boo ñaa kon kañ combat boo ñaa moo si pertu su ko Balla Gaye daanee dañ naan Balla Gaye da kaa mën su daanee Balla Gaye ñu ne Balla Gaye ah, xamoon nañ ne booy beeg mën yàmbar la loolu la ñuy wax ah xale bi jëlee na ko fi moo tax ma ne moom pertu ci dara xaalisam rek la ciy gagné ñu ñaan yàlla lim si gagné mu mu mu rees ko ndax mbër la ah. dafa marqué empreinte am